ay dara yow nga nek ci kër ne da nga leen di defal taranga da nga leen di defal taranga wa lan moo indi nga nga uñi sutura xalé yi ci mbedd mi di menacer journaliste xam nga demb li tax tontu mako sax demb ci télé bi mooy dama xalé yi parce que Fatima Diop yow da nga ko daan dimbali nga wax ko ci mbedd amet yow ñi la dimbali ñep amet yow Bougane Gueye dani mo la dimbali ba nga nek li nga nek sudul won bu Bougane Gueye dani do nek maire parce que ci télé rajo bi nee nga 8 millions la la doon fay kon loy doy xey fajar di wax looy doyee xëy fajar di taxawaal kuy fayeeku huit millions d'accord beneen bis topp amet bu ñi ñi ñëpp ki nga waroon kenn rek nga waroon jàppale ci Sénégal mooy Bougane Gueye Dany parce que yow Bougane yaa waroon sax nekk chauffeur am parce que Bougane lim la defal kenn defalu la ko ndax yow doo journaliste Bougane boole la ci biir journaliste yi jox la tele mettre la à sa disposition jox la seen jotaay jox la revue de presse am patron de presse yow bu ñu doon xeex yaa leen waroon jiital parce que alalu revue de nga dundee alalu revue de nga te ci revue de presse ak ci télé nga attaqué Aliou Sall xam nga Aliou yàq deram xas ko léegi nag affaire Lat Diop boobu affaire Lat Diop bi mu wax hmm. amet man dama doon jël ay nit di leen yóbbu tës pour mu ñu dimbali leen parce que Ahmed moo doon toog tës nekk géwélu juddu Lat Diop man ba ma jël ay nit ñu teral leen moom mu yóbbu leen ci lat xale yooyu bu ñu yeewoo dégg Lat Diop ay Aïdara di ko yàq lu mel ni xeme xale yooyu dinañ ne ma waadu kii moo ñu dimbali woon beneen bi ci topp mooy Lat ak moom bokkuñu classe bi Lat di jàn bi Lat di nekk directeur investissement bi Lat di ay directeur boobu Ahmed fan la nekkoon te Guédiawaye FC lat daf ko créé di ko dooleel mais na dafa ñëw ne day rocc Guédiawaye FC dindi seeni i combat yow yow amatoo compétence mairie ba waa dëkk ba dàq nañ la mille voix nga am ci dernière élection présidentielle yu mairie bi bàyyi na la mairie bi moo ko bàyyi man mi wax ak yow nee na man daf may duma man damay ñëw nangu si mairie bi. ban mairie ngeen. Guédiawaye xam nga moom nee na su ma jàppee dafa may duma. <laughs> non non xam nga xam nga nee na nee na su ma jàppee damay duma. d'accord mais mais xam nga xam nga. xam nga non xam nga su ma. waaw non nee na nee na su jàppee damay duma. xam nga yan duma la ba lay wax duma yi ma ko nar a duma ci mairie Guédiawaye parce que xam nga lu tax li da. non non non xam nga lu tax. waaw non non duma élection duma la xam nga moom daf déggoo ma daf ne day duma Aliou Sall. te dumalul Aliou Sall da koo sosal fenal ko yàqal ko léegi nag xam nga ñett yi la defal Aliou Sall tey moo taxaw baalo ak Aliou Sall ay dara xanaa moo dañ ko waa population Guédiawaye dañ ko waroon yóbbu tribunal ci dol parce que dafa leen doon wax lu dul dëgg ba ñu dindi l'un des meilleurs maires beneen bi si topp Lat Diop dafa sponsorisé woon émission am te nee na moom Macky Sall la joteel moo tax ma jotee moom dafa juum man xaw ma Macky Sall li jëndi moom moom Ahmed Aïdara moom ci wàll boobu avant muy nekk géwélu Lat Diop géwélu Marème Faye Sall la njëkkoon nekk tuddee ko Cœur d'or avant muy nekk géwélu Lat Diop géwélu Marème Say Sall la njëkkoon mais duma yi nag na ma ko dencal parce que ci élection locale yi di ñëw dinaa transféré dem géejawaay parce que xam tax lii bu continuer nii géejawaay mooy ñu am maire boo xam ne ni du liggéey am maire boo xam ne li liggéey non liggéeyul xam lu tax mais li muy ah, ñaata maire Ndoye Bane du maire waaw mais demal xool réalisation Ndoye baan yi pire Ndoye Bane mës nga ko gis mu utiliser émission am wala plateau am wax directeur Lass du maire ci xawma ma Koumpentoum ban dëkk Tamba Missira mës nga gis kooku dégg nga ko ak résultat yi muy def gis nga tey jii nii euh, journaliste yi Pape Djibril Fall nekkul journaliste dem assemblée est-ce que utiliser na turu journaliste mais moom heureusement ba du journal léegi yow géejawaay c'est des milliards ay compétences la ay techniques yow maire yi dangay xëy huit heures seen bureau ba dix-huit am na maire yoo xam ne vingt-deux heures la ñuy wàcc tey meilleur maire bi ñu nommé xaw ma xombal tey maireem lan la fa réalisé yow Ahmed Aïdara tey li mu nekk di def nii géejawaay bëggul géejawaay moo tax benn moment comme man géejawaay am naa fay am naa fay tànta samay rakku yaay fa lañ dëkk. d'accord ñoom samay ñoom katu bareek sama katu jàlloog ñooñ damay dem géejawaay parce que sama maam dafaa dëkk damay dem géejawaay dëkk fa récupérer mairie bi. parce que tey ni mu def mairie bi daf ko hypothéquer beneen bi si topp non beneen bi si topp damay bind le ministre de des relations avec les institutions dinaa ko bind wala ma lancer pétition mhm. pour que ñu commencé jàngale lan mooy maire ak lan mooy honorable député parce que Ahmed Aïdara dafa nekk di ko banaliser te xale yi mën nañ jàpp ni ni guignol yi Ahmed di def nii ak yi Ahmed Aïdara di def bêtise non dama ni xam nga tey mooy toog sa plateau xam nga tey Ahmed nee na nee na nee na mais yow plateau boo toog saa yoo yeewoo après Tunkara après Lat Diop après abu Diallo mais loolu plateau la yow si yow miy def journalisme wan nga xëy saa yoo xëyee yow huit da ngay song benn nit mais bu doon foofu di waxtaanee économie man su ma invité ma ñëw su doon toog foofu di waxtaanee ak ay soci affaire société ma ñëw mais saa yoo yeewoo pour tontu si ay te dama ko waxoon ci émission bi may tëj ma ne xam naa bu xëyee dina delluwaat ci plateau wax ma ko léegi nag comme moom honorable député lañ ñit ñi ay honorable député lañ moom mu nekk déshonorable député donc moom am na jot waaye man xeex yi na ma ko reporteel duma bi na ma ko reporteel parce que maa ngi koy fekk si géejawaay parce que xam nga moom yambar la ak tapet parce que góor góor bu naan dama lay duma public góor buy wax naan dama lay duma public xam nga wax boobu mu wax moo tax ma tontu ko mm. parce que su ma ko tontuwul woon ñun suñu xeet du ñu daw xare d'accord ñun suñu xeet du ñu daw xare te li amet ma ngoonee njaay di way naan xamoon naa ni waxoon naa la dinaa ñëw li muy way buy dugg si kër yi mm. amet xamoon waxoon naa la naa ñëw ñëw naa parce que fële Fatima Diop mi nga doone te mag ñi ak kilifa yi nañ la daw yow koo jëflanteel denc ko suba nga wax ko li nga def Fatima boppam la xeeblu parce que yow da defal nit ay taranga yow li la Bougane defal waxu ko li la Idriss sekk defal waxu ko man li ma recevoir ci ay taranga yu jóge sama yow sama barke waxuma ko nga mën a taxaw yow di ko wax. d'accord Abou te bu bu xëyee mu demaat deux ans. delluwaat foofu. toogaat après man ma ñëwaat jëlaat feneen toogaat fa ana ba keroog may récupérer mairie bi.